asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk mi laaj ne ndax imaamu Shafii yi dafa amoon soxna sum jëbbul woon ak ibnu ibnu arabi muhiddin ibnu arabi ndax moom it dafa amoon soxna sum jëbbul woon ak it ndax euh, soxna mënees naa ci moom mel na laaj yu bari la waaye te bari ay teqantal yi ci yum aaje waaye ci gàttal rek bu dee imaamu Shafii moom daje woon naag sayida nafisa nafisatul ulum doonoon soxna soo xam ni boroom xam-xam la woon bu mag ndax dafa jàng ca madinal munawara ca la jàng ca imaamu malik xam-xamu xadis rawatina mu wattawu malik ci moom ci malik la ko jànge jàng fiq jàng xadis jàng xam-xam yu bari mu géeju ca loolu nag ci la daa jokkalante ak imaamu Saafi'i yi kon soxna Nafisa moom ak yeneen wet ndax soxna Nafisa it doon nit ku baax sëtub yonente bi la itam sallallahu alayhi wa sallam ndax Nafisa al ulum sax lañ koy wax Nafisatul ilm mooy doom yi soxna mooy doom yi alxasanul anwar mi doom yi Seydina Ablaj mii doom yi alxasan Seydina Xasan al sibt doomi Seydina Ali ibnu Abi Talib karamallahu wajhahu ak soxna Fatima radiyallahu anha doomi rasulillah sallallahu alayhi wa kon day daa sëtoo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, waajuram nag di ku ñu xam di di ilimaan ju ju jàmbaare bokkoon ci eh, waaw ci ci taabiin yi la te ñëpp xam ko ci xam-xamam ak mbaaxam ak ragal yàllam <clears throat> aku moom euh, moo tax nag mu teel ko yar ci diine ak bëgg xam-xam ba tax na itam loolu moo ko moom ci la ci la jaare ba moom soxna soosu mu nekkoon ku bari xam-xam loolu moo tax mook mook imaamu Shafii daanañ jokkalante ci wàllu xam-xam rawatina xam-xamu xadis waaye imaamu Shafii bi muy ñëw Égypte fekk na boobu moom moom moo doon kilifa fekk na boobu am ngiram taxaw bim ñëwé nak la fa fekk soxna Nafisa mi soxna Nafisa moko fa jitu mok borom kërëm euh ishaq al Mu'taman moron borom kërëm doomi Jaafar Sadiq mu Muhammad al Baqir mu Ali Zeyn al Abidin mu al Imam al husayn mu Seydina Ali karram allah wajha ishaq al Mu'taman momu moko wajuram mook eh, soxna soxna si soxna Nafisa ak ak waajur soxna Nafisa ñoo ànd ñëw ñëw Égypte bañ ci tegee juróomi at kila ci la imaam Saafi'i ñëw imaam Saafi'i benn fonkoon na ko ngir xam-xamam ak lim daa jëflanteeg moom ci wàllu xam-xam lim moom ci wàllu xam-xam waaye fonkoon na ko itam ngir ne soxna si dafa bokk ci alu bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci surtout day bi doonte imaam Saafi'i moom it sëtub bi la waaye imam Shafi dafa amoon eh, xër gu mu amoon goo ne gu ñëpp xam la ci waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alun nabiyi zariati wa humu ilayhi wasilati arju bihim uta gadan bi yamin bi wax ne mm, seti yonente bi ñooy sama lay ëllëg ñooy sama jaaruwaay itam jëm ca yàlla ak yonente ba sallallahu alayhi ci ñoom laa yaakaare ëllëg sama borom jox ma sama téereb jëf joxe ma ko ci sama wetu ndeyjoor wax na itam ne yaa aala bayti rasulillahi xubbukumu fardun min allahi fi lqurani anzalahu yakfiikumu min azimi alqadri annakumu man lam yusalli alaykum la salaata lahu yéen ñiy sëtoo ci yonente bi xam leen ne bëgg leen loolu farata la ndax yàllaa ko digle ci alquran te doy na leen rek daraja mooy kuy julli sax bu julliwut ci yéen eh, amutug julli تي ميغي جونيو بوبو صلاه على النبي بي نيك تي موجوك تايا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد لا والله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد روايه يو بري مو تي روت سيد نك بوكو تي امام شافعي اغنا صاحتي واخنا ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافضي معنى فكي بغ جابتو يونت بي موي بوكو تي سيان يكون كون مان تي نيوم لا بوكو لولو واخنا كو kon moom dafa bëggoon képp ku sëtoo ci yonante bi lool it boole na ko ak soxna su baax soosu daanako ko siyaar siyaar lu bare bari eh, wax nañ ne bu ma saat dem jàngale di jàngale ji di ci ëpp daana jaar kër soxna si siyaar ko weeru koor bu ma saa ñëw eh, naafile tarawix ci jàkkay soxna su baax si soxna na fii sa cere koy defee wax nañ loolu itam eh, wax nañ itam bu ma saa wéradi dana yeble sàkku ci moom ñaan moom imaamu Shafii daan ci yebal ku mel ne talibim boobu eh, mu nga xam ne imaamu Shafii moo ko jàngal muy Rabi al Jizi wax ne daan na ko fa yebal bu ma saa dem da koy wax ne ko sa doomi bàyyi ji day Shafii dafa xaw a tawat te mi ngi sàkku nga ñaanal ko wax ne soxna si bu ma ñaan rek yàlla da koy defal tawféex mu daal di tane wax ne nag ci. wérdi imam Shafi gi mujj moom daa yónnee ci soxna sa di sàkku ci moom ñaan soxna si ñaanal ko ñaan ko xaw a euh, kii maa ne da ko wax bi mattaahu llahu binnadari ila wajhil karim yal na ko yàlla may tawféex mu mën a gis sunu borom tabaraka ko taala imam Shafi bi ndaw li ñëwee indil ko tontu li dafa wax ne ah, loolu di kon moom ab junj la daal di bind wasiyaam mooy dénkaaneem xam ne day day day ci tawat jooju daf fi bàyyi ko ci tawat jooju daf fi bàyyi ko waaye dénkaane woon itam ne bu bu fi jógee nañ ko jaarale ci soxna sax mu ñaanal ko bañ bam fi jógee noonu lañ def yóbbu nañ ko ba ci soxna sax mu ànd ci jullee ga jiite wut waaye ku ñëw abu yaqubal bu bu weti moo jiite waaye soxna si ànd na ci julli gi na ko itam seere su gàtt ndax dafa wax ne rahimallahu saafi ay kaana yuxsinul wudu waaw rahimahu rahimallahu shafii kaana yuxsinul wudu yal na yàlla yërëm shafii ndax moom kat ku mënoon a jàpp la waaw ku xamoon nu ñuy jàppale te rafet aw jàppin ndax xëy na loolu la gënoon a xam ci am soxna su baax la woon su ragal yàlla am diine te te jege yàlla waaye nag lim seqoon ak imaam Shafii moom weesuwul lii rek imaam Shafii bëgg ko ngir yàlla ngir da day nit ku baax ku setoo ci yonente bi te am xam-xam mu daa joxlanteeg moom ci loolu rawatina muy ku yàlla nangu ñaanam itam mu daa jëflanteeg ci moom ci loolu loolu mooy diggante imaamu Shafii ak uh, soxna Nafisatu uh, uh, Nafisa mu baax moom bu dee ibnu arabi muhiddin ibnu arabi alxaatimi cheikh muhiddin ibnu arabi moom it am na soxna soo ni dana koy tudd moom ci boppam lu bare bari mooy ki ñuy wax Fatima bintu Ibnil Musanna al Qurtubi euh, moom it soxna soosu doon ku baax a baax a baax a baax nitu yàlla la woon ci nit yàlla yu mag yi la bokkoon ca Ishbiliya euh, nekkoon ku bëgg yàlla yitam daa dund ci bëgg yàlla ak ak rawatina bëgg ci yàlla bëgg ci yàlla ak bëggee sun borom loolu moom moo doon ak dunda moom soxna soosi Muhyiddin Arabi itam. li soxna li imaam Saafi yi seqoon ak soxna Nafisa rek moom la seqoon ak a si mooy da ko daa siyaar fonkoon ko di sàkku ci moom xëy na ñaan ak di jëflanteeg moom ci ci wàllu googu euh, moo tax am na borom xam yoo wax ne tërbiye na ko waaye loolu la tërbiye ñoom buñ ko waxee li yëpp luñ jublu mooy joxalante bi mu joxalanteeg moom xëy na mu jox ko ay azkar wala yu ñu demee noonu wala yu ñu demee ndax ñoom bu fekkee nit ki laa jox ay xeeti. Euh, azkar jox la ay isnu wala ijaasa wala yu demee noonu loolu mën nañ ko tuddee tërbiya léeg-léeg waaye lu mën a xew moom Muhyiddin ku ko ko fonkoon la euh, nettali na itam lu mel ne fususul xikam nettali na fa ne soxna si ma daana wax ne sama borom sama soppe bi jox na ma faatixatul kitaab moom may liggéeyal waaye loolu taxul ma maanaam ma bàyyi ko xel man yàlla rek laa laa laa teg bët moom laa bàyyi xel. ak yu demee noonu kon loolu it lim seq ak li diin Muhyiddin Cheikh Muhyiddin lim seq ak soxna si mooy la imam Saafi seq ak rek fonk ko ndax day nit ku baax ndax nit ku baax moom foo ko waay xamee rek nda koy sopp waaw loolu kon moom lañ mën a wax ci ñaar yooyu bu dee nag ndax mën nañu jébbalu ci ci soxna loolu moom <laughs> waxi boppam la joo xam ne moom aajana lu gudd gudd moom waaw xamul nag danañ ci mën a yaatalam déet xanaa. ñu njëkk xam ni euh, li ma li ma ci mën a njëkk a wax mooy am na loo xam ne mat naa bàyyi xel mooy góor ak jigéen moom ci yàlla ñoom ñaar ay jaami yàlla lañ yoo xam ni suñ borom moo leen moom bi sàkk leen digal leen ñu jaamu ko dox bi ñuy dox itam jëm ci yàlla te muy doxub góor yàlla yi nga xam ne moom la xam-xamub tasawuf di jàngale dox boobu itam góor jigéen ñoo ci yem kem ni sa positif toll rek moo xam góor wala jigéen ak kem ni sa eh, ni sa jaamu toll ak ni sa ragal yàlla toll ak ni sa mbaax toll ak ni sa sellal toll noonu yi ngay amee eh, tawféex ci sun borom sun borom wax na ne man a saalihan mi ngi lekkari na wungi fee wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaxmaluna am na feneen fu mu wax ne fastajaaba lahum rabbuhum anni la udiu amala amili minkum min maanaam yàlla settewul góor ak jigéen ci jëf ju baax moom jëf ju baax it lépp lu muy maye bu ko góor jëfee mu may ko ko bu ko jigéen jëfee mu may ko ko wa man ya'mal mina saalihaati min zakarin aw unsaa wa huwa mu'minun fa ulaa'ika yadxuluuna al-jannata wa laa yuzlamuuna naqiiraa yu bare bari yu wax loolu ba ci maqaamaat di itam maqaama mu ci ne na ca góor mën a àggee la ca jigéen mën a àggee nañ ci alxuraan te usul li li nit yàlla tudde maqaama waxuma nag li nga xam ne gars ci mbedd mi suñu classe bi ñoo koy wax di ko tuddee waaye li nit yàlla yi tudde maqaam moom ci alxuraan te mooy maqaamul islaam ak maqaamul ixsaan ak maqaamu eh, al al al al al iman maqaamu sabr maqaamu sidq xeetu maqaamat yooyu fu ko suñu tudde ci alxuraan li ci gis nga dana ci tudd jigéen ndax ni ko ni ca góor mën a àgge noonu la ci jigéen mën a آه، أمن في معنى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاسعين والخاسعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يا أي مقام الله أي طول وعلى يبكون نعم. إسلام جبتي جيتو nit ki mën na cee ne te ngëm dëgg-dëgg ngëm du tàbbi xolam loolu feneen beneen aaya lañ koy déggee bu bi suñ borom wax ne qaalat al a amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna wa lamma yadxulil imaanu fi qulubikum mooy yéen dañoo wax ne ñoom gëm nañ yàlla na leen yéen àggagu leen ci imaan yéen wax leen aslam na rek waaye imaan tabbeegul seen xol kon ñoom ci islam ñi ngi ci islam àggaguñ ci imaan ginnaaw ba nag ci nga ci la sidq ak sabru ak yooyu yëpp ay tolluwaay la yooyu nag la yi tuddee maqama seigne touba lol la wax itam ca ca ca ca ca bu kaw manaqib ya bam koy wax eh, lol lol la ca wax kon lool it boo gori góor jigéen ñoo ci yam kon lepp lo xam yalla dana ko tawfexal ab jaam rek ci kaw mo xam pas-pasam wala ngir tan gum ko tan ngir xeyna melo yu ne ci mom wala jikko yu ne lolou loolu jigen ci yam ba ci bu dee lu mel ne jàngale diine ci loolu moom góor ak jigéen ña ci yem ba tey wal muminuuna wal muminaatu baaduhumu awliyaau baad yaamuruna bil maarufi wa yanhawna anil munkar ba ci lu mel ne nubuwa ak yonant moom foofu danaa ci ñëw léegi waaye ak nubuwa bu weesoo rek daraja ji ci topp mooy siddiqiya siddiqiya boobu gis nañ sunu borom melal ko seen soxna muy soxna Maryam. mal masiixu bnu maryama illa rasulun qad xalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa siddiqa kon kooku siddiqa la te suñu borom daa wax ne ulaayika alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina ñoo topp ci nubuwa nabi wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihin doo ko ñëw ba ci gis nañ lu mel ne malaayika yi ci boppam xam nga ñoom moom bu dee yonente yi li ñu ràññi ko mooy malaayika yi dañuy ñëw di wax ak ñoom te loolu gis nañ soxna maryama سون بروم خامون نانيو ني ملائكه يي دانيو دا واخ اك موم قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين غيس نان صاح سخنا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سونو بروم تبارك وتعالى manam yonente bi rek la bëgg wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni fatima badaatun minni loolu xadis la muttafaq alayhi ndax buxaari yi nettali na ko ak muslim ak ñeneen ak ñeneen xadis bu wax ne fatima badaatun minni yuribuni ma arabaha wa yudini ma arabaha badaatu min ni mooma ci ci man aw dog la ci man xa Fatima daa bokk ci man lu ko naqari naqari ma lu ko neex neex ma yàlla sax bu Fatima gërëmee mu gërëm ndax yonente bu bu bu gërëmee suñu borom gërëm loolu nag fi ne am na borom xam yoo xam dañ cee sukkandiku ci yooyu ak yi xaw a mel noonu beneen soxna Fatima fi ne ginnaaw bu yonente bi jàllee xeet wi moo ci gën ndax ginnaaw ab ak ak ab ab ab aw dog la eh, ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam lu bokk ci yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam kon loolu. am nañu sukkandiku ci borom xam yi ku wax loolu bu dama xas teewlu wut yaakaar naa wax naa ko ci ay bërëb sax nag ba tey léegi nag jëmmi loolu moom mooy dox jëm ci yàlla ak cër yaak yooyu loolu moom góor a jigéen moom ñoo ci yem wax dëgg yàlla ci boo buñ seetloo mboolem tegtal yëpp loolu lay tegtale waaw léegi nag jëmmi nag jigéen ak góor nag mu am beneen teqale nag dañoo bokkul jigéen a góor dañoo bokkul dafa am loo xam ne góor mën na ko waaye jigéen mënu ko boo gisee ci kër gi suñu borom da ko da koo séddale góor mu am lu ko lu mu ko féetale te mooy wuti lu yore kër gi jigéen mu féetale ko toppatoo mbirum kër gi biti kër ga góor ay génn dem lijjanti ji ah, jigéen toog ci kër gi toppatoo kër gi ak njaboot gi ak lu aj ci kër gi loolu da ko séddale ndax góor moo gën a man le lii itam jigéen a gën a man ci loolu it la mbirum sëriñ di di dikke bu dee aji sëriñ moom sëriñ ñu fàttaliku ne maanaam maanaam maanaam cosaanam mooy ak yonant yonant moom la sëriñ di donn yonant nag dafa amoon ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay liggéey liggéeyam ci kaw suuf liggéey yu bari la waaye mën nañ koo tënk daanaka ci ñett yi nga xam ne mooy ñett xeetu sëriñ si te mooy jàngale ak tërbiya ak lu ñuy wax tarqiya jàngale moom waxoon naa ko léegi loolu moom góor jigéen a ci yem moom waaye nag wuute nañ ci ci kaw ne jigéen moom bu demoon bay jàngale itam am na anam yum ko war a defee ak ñum war a jàngal xëy na ak ñum warut a jàngal ak ay sart yoo xam ni war na ko bàyyi xel ci la muy def loo xam ne borom xam-xam yi ñoo ko tëral xëy na duñ ci dugg muy gën a gudd ba tey foofu wuute nañ fi jàngale diine waaye nag bu dee fonction yi ci des nag foofu nag la wuute bi ne ndax jigéen mën naa tërbiye wala yooyu loolu dañuy xool ndax jigéen dana nekk yonante ci boom ndax yooyu yëpp bu mot bu matee ci nit ci lay donn yonante donn gu donn goo xam ni donn gu zaahir ak baatin la loolu mooy taxit mu mën a wuutu yonante bi ci eh, di gindi jaam ñi ak di leen bijjante ak di leen eh, teete jëme ci sunu borom tabaaraka wa taala waaye bu ñu seetloo dañuy gis ne borom xam-xam yëpp maase nañ ci ne jigéen moom du doon yonant loolu moom kenn rek ci borom xam mi laa xam koo xam ni eh, moom àndu ci muy ibnu Hazm al Zahiri al Andalusi ibnu Hazm moom moo wax ne jigéen mën naa doon yonent waaye ku kooka borom xam yëpp maase nañ ci ne jigéen moom doon yonent te seeni eh, tektal ñoom borom xam yi ci res moo gën a dëgër bokk na ci li ñu tegtaloo lu mel ne li suñu wax ne wa ma min qablika illa rijalan yuuxee ilayhim min ahlil qura loolu wax na ko ci bërëb yu lu mat ñetti bërëb yaakaar naa wax ne yàlla ay ay góor lay yónni loolu nag Ibnu Hazm am na nu koy tekkee moo yeneen gaa yi waaw waaye nag borom xam yëpp daal maase nañ ci ne yonent moom góor lay doon loolu nag sëñ bi tënk na ko sëñ mag bi ca Mawahibul Quddus wax na ne yonant góor kese kese lay doon moom wax na ne xaqiqatu rasuli insanun dakar xurrun fatinun aaqilun qadi tamar أمره الرب بتبليغ لما أخبره به بوحي قد سمع وللنبوة شروط أربعة جئت بها في ذا النظام فاسمع أي كونه من آدمي دون جن أو ملك أو غير ذين لا تمن وكونه من الرجال لا نساء لأنه الدهر يكون مؤتسع وكونه حرا سليما عاقلا لا ذا جنون أو سفيها جاهلا وحنا dëgg-dëgg ab yonent foo ko fekk nit lay doon bu pare nekk góor nekk as gor su am am xel te xellu tey def ndigalul yàlla bañ a juyoog yàlla yàlla digal ko nag ngir mu jottali eh, wax yu gi mooy li ko yàlla yónni mu jotli ko nit ñi daal ni nag ak yonent ci boom maanaam rasul kooku mooy rasul moom waaye nubuwa ci boom ngir nga nekk yonent nubuwa ak euh, risaala gi ñaare yu bokkuñu nubuwa mooy ki nekk yonent waaye risaala mooy ki ñu yónni nag ci nit ñi ah nit ki mën naa nekk yonent masalan te duñ ko yónni ci nit ñi loolu la ko borom xam mi teqale waaye nubuwa nag sëñ bi ne am na ñeenti sart seer sart yooyu ba ci jiitu ab doomu aadama lay doon du nekk jinne du nekk malayka du nekk lu may jinne malayka du nekk leneen daal lu may doomu adama sëñ bi teg ci itam ne wa kawnuhu min ar-rijaali laa nisaa góor lay doon moom ab yonant du doon jigéen mukk ndax li annahu daara yaku yakunu mutasa maanaam yonent dañ ko war a roy te eh, maanaam bu doon jigéen roy gi dana am ay gàllankoor yu ci am ah, loolu dinaa ci ñëw léegi waaye sëñ bi tekki ne as gor doon ko ko mucc ci mboolem sikk yépp ba pare am xel te du dof maanaam xel ma du naqari day ànd ak xelam eh, du desee itam ak mat niñ koy waxe du nekk koo xam ne daa daa du nekk ku réer kon mën nañu jàpp ne yonentam góor lay doon moom kon ngir nga mën a doon lépp yonent moom kooku daa mel ni day mel ne itam góor rek moo ko mën ci buñ buñ sukkandikoo ci istidlaal boobu loolu nag tekkiwul ñu gis yonent yoo xam ne ma ñu gis jigéen ñoo xam ne loolu li ma bëgg wax mooy ji eh, jotewul ak dara ñu gis ay jigéen yoo xam ne yàlla da leen di wax yu li ñuy wax wax yu ci alxuraan gis nañu wa awxaynaa ilaa ummi muusee an ardiihi ak lu mel ne fanaadaha min taxtiha allaa tahzani si soxna soxna Mariama waaye wax yu googu it borom xam mi dana dañ dañ ne loolu ilham la mooy yenkewal la comme ni suñu borom di wax yoo yamb yi noonu lay wax yoo léeg-léeg góor ak jigéen mooy am li mu bëgg nga xam ko mu def ko ci sa xel nga xam ko toqal la ko ci sa xel nga daal di koy xam loolu moom dana koy def góor ak jigéen dana koy def yeneen mala yeeg yeneen mbindeef yëpp wa awxaa rabbuka ila naxli an taxidi min al jibaali buyutan loolu misaal la ci mi nga kon loolu it am na ñu koy tegtaloo ci bëgg ko bëgg wane ne yonent ak jigéen waaye loolu ba tey du matut tegtal kon buñ seetloo kon eh, kon li des nga xam ne moo tee jigéen mën a mën a mën a kii mooy lu mel ne wetuk tërbiye geeg ak wetuk eh, royteef gi nga xam ne lu ñuy wax seexu tarqiya nga xam ne moom moom moom du wax ak yow ndax seexu taalim moom da lay jox ay xam-xam seexu tarbiya moom it da teg ci aw aw yoon di la jàngal di la jubbanti waaye seexu tarqiya moom yooyu yëpp du ko seqa daanaka ci liñ ko waxee moom ci roy ko ak gis ko ci ngay ci ci ci la ci la sa mbir di jage mooy li yonent bi doon wax naan idaa ru'u dhukirallah boo leen gisee rek sa dem ci yàlla nga xam ne buñ la xoolee itam wala nga jotaay ñoom dana am lu tàbb ci sa xool wala sa ruux ak sa jëmm loo xam ni mën nga caa defaroo adduna ak alaxira loolu moom mbiri suñu borom la yoo xam ni am na tegtal yu bare bari xadiisu xandala bi imaam muslim net li man na ko firndeel nga xam ne wax na ne bu ñu toogee yoonante bi ah, dañuy àgg ci sellaay ak mbaaxaay ak ruuxaan ak yëg-yëg yoo xam ni buñ fa jógee dootuñu ko yëgati yonante bi ne leen dafa giñ ci yàlla moom yonante bi ci xadis boobu ne giñ naa ci yàlla ne ni ngeen mel bu ngeen toogee fi man bu ngeen ci doon sax malaayka yi dañuy saafoonteeg yéen ci mbedd yi loolu la yonent wax eh, sallallahu alayhi wa sallam kon nag wet googu kon moom laa bëgg a wax ne moo am ak wuute waaye bu dee ci yonent moom borom xam yëpp maase nañ ci ne moom jigéen du ko doon moom léegi nag ndax jigéen mën naa tërbiya eh, nit ki jaayanteeg moom mu di ko teete ci yoonu yàlla loolu itam bu dee jigéen ne moom bu dee jigéen ne moom am na borom xam tasawuf yu bari yu ko nangu am na sax nag. jigéen yoo xam ne dañuy teete seen morom bu dee suñu yoon wii nii gis nañ mag ñi buñ mës a am doom jigéen dañ koy jox kenn ci sunu soxna yu baax yi nga xam ne ñooy kilifa yu baax yi nga xam ne ay jigéen lañ ci yoon wi nga xam ne ñoo koy tërbiya kon jigéen ne moom it mën na koo tërbiya moom waaye nag góor nag ñëw lu ci jigéen foofu nag moom li ëpp ci borom xam mi tasawu fii moom wax dëgg yàlla nangu wuñ ko nangu wuñ ko loolu laa ci seetlu eh, teewul nag am nay benn benn mel na ñu koy def waaye loolu ginnaaw sëñ bi la xew moom gën a seetlu naa am na kilifa yu mag yoo xam ne bi ñu fi jógee jigéen lañ fi bàyyi jigéen ñi mbooloo mu nekk ci ñoom waaye loolu sëñ bi bàyyiwu ko fi moom ginnaaw sëñ bi la xew waaye jàpp naa daal góor moom dem ci góor ña ñu tërbiye la loolu moo gën te moo gën a dëppoog li ëpp ci borom xam-xam tasawuf yàlla yi liñ liñ liñ jàpp ak liñ wax bu dee jigéen nag ne moom moom bu gisee jigéen joo xam ne mate na ko mën naa tërbiyewu ci moom safaan bi nag mën naa am mooy jigéen moom mën naa dem ci góor jébbalu ci moom ni ki nga xam ne jigéen ñi ci jamono yonente bi dañ daa jaayante ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam soxna Aysa natt na ne ñoom buñ masaa ñëw yonente bi di jokkalante ak ñoom wa loxo waaye nag eh, maanaam danañ jaayante ak ñoom moom mu nangul leen ko mi ngoog am nag sew sew bu gàtt boo xam ne xam naa ci lay daanale mooy jëmmi nit ki bu jébbaloo ci ab sëriñ dafa xam cofeel goo xam ni moo leen di lëkkale bëgg googee nag du bëgguk aduna xam nga bëgg ay xeet la am na bëgguk ruux ak lu ñuy wax bëgguk bakkan ak lu ñuy wax bëgg xam bëgguk suñu borom la al xubbul ilahi wal hubbur ruuxi wal xubbu an nafsi loolu nit yàlla yi dañ ci wax lu bare bari di ko teqale bëggu bakkan nag mooy bëgg nga bëgg xeeti bànneexi bakkan yi ci aduna xeeti yi ci aduna bëgg ko sa bakkan bëgg loolu loolu la ñu tuddee bëgg bëgg bëgg gi nga xam ne moom ngay bëgg sëriñ bi loolu bëgg gu la fi mu ne kenn ku ne ci noonu boo déggee soxna maam jaara wala nga dégg soxna Aïsa radiyallahu anha anhuma jamian soxna yu baax yooyu boo leen déggee da leen daal di bëgg waaye sax xel du xalaat leneen moom bu dee jigéen it mag ñu baax ñi ñi àndoon sëriñ bi wala jëmmi sëriñ bi wala yonente ba ñooñ da leen di bëgg waaye xelam du du root sax leneen léegi nag bu fekkee góor dafa fekk soxna mu jéblu ci moom fi mu ne bakkanam maanaam njëlbeen gi mën na koo bëgg ngir yàlla comme bëggu ruux googu ma wax waaye bakkanam mën naa traduire bëgg ki jëme ko ci bëggu bànnee xam gi nii loolu luy am la sax nag te man dama koy seetlu lu baax ci ñu bari di ko jàmbat nit ki nga bokk ak moom ma sa yàlla rek boole leen ak jëmmi sëñ bi nga mujj bëgg ngeen bëggante ngir yàlla nga xam ne moom góor jigéen a ci yam ñëpp nga commencé bëgg ci dayra bi nga mujj sa bakkan traduire la bëgg gi mu nekk geneen bëgg goo xam ne bëggu àdduna lay doon ak bëggu bànneex ak bëgg a satisfaire say bànneex ci moom say bànneexi àdduna loolu nag lu bunt la boo xam ni bu bu bu danger la boo xam ni moom moom moom moom moom moom koo xam ni day doog a doo soobu moom lu ko mën a gàllankoor la moom ndax day fekk bakkanam nooyagut waaw yal na yàlla dafa tawfeex daal loolu daal mooy li ma jàpp moom yooyu daal du loo xam ne mën naa cee dogu ne nangam waaye lii ma ci wax rek yaakaar naa ku ko déglu da nga am loo ci jële wallahu taala هو العالم وحده سبحانه وتعالى